ca mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar euh, bu baax a baax di leen jox seen waay di jiitalaat nuyoo bi suñu sëriñ suñu xalifa macha allah di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér tey nag mu nekk li nga xam ne ne témoignage laa ko tudde mu nekk euh, jinne bi nga xam ne ne macha allah moom moo toppoon xale bi étudiante bi Michel laa ko tàmm sax di ko woowee ndaw si mi ngi tudd koddu jinne bi doon ko gàllankoor mu nekkoon étudiante nekk fii ci université Cheikh Anta Diop macha allah jinne bi di ko daaneel ci à chaque fois di ko ruubee di ko yàqal ba examen meeg yëpp yaakaar naa ne mënutu ko def bu mi demee université di daanu di indi ay tolof tolof ci saa su ba tey nag ñu daal di koy gis nag macha allah mu daal di ñëw sañse sàjj def tagalam bu baax def ay veeram kon nag euh, soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax koddu di la ziar bu baax a baax. maa leen di fay bu baax a baax Ngoné mhm. maa leen di nuy yéen ñëpp mhm. di nuyu le xalif général mhm. di ko sant bu baax a baax a baax ndax ginnaaw yàlla tey su ma demee bay génn man rek di génn guddeeg lépp ginnaaw yàlla moom moo tax bu dul woon moom kon xam naa instant bi kenn xotul samay mbir fàtte nañu bu yàgg dëgg la waaye jàppale na ma ba tey alhamdulilah rabbil alamin maa ngi koy sant bu baax a baax fu ma toll maa ngi koy gën di sant di ko ñaana mu yàgg fi dëgg la kon Ameth Codou ñu ngi gis tey lan kon lan moo fi nekkoon tànk yi ginnaaw bi nga amee woon ay jinne yu dëgër bopp ay jinne yi nga xam ne dañ la doon sonal di la daaneel à tout moment comme li nga ko waxee tey guddi nga dox ñëw te jour bi fii ñëw metti woon na sa yaay sonnoon na jaaxle woon na fu ne fu ne yóbbu na la fa mu nekk jinne bu sadik bu metti waaye fekk na fi nag sëriñ bi ku ko gën a sadik sës ko lu metti ba dugal ko fii ci suufu chaise bi jinne bi sadik metti bu jàkkoonteeg yow jinne bi ni mu la daan def ak yan tolof tolof nga daan am ba daal di ñëw jàkkaarloog sëriñ bi mu maîtriser jinne bi ba téye ko ba léegi nga mën a nekk ci jàmm salaam di jàng macha allah bëggoon nañ nga indi ay explication ci ni la jinne bi daan def ak sëriñ bi ni mu def jinne bi ba téye ko nga nekk ci jàmm. waaw jinne bi sonaloon na ma trop. Mhm. tardeel sama jàng. Mhm. tardeel samay activités yëpp parce que heure bi waroon naa nekk sama troisième année cité wala ma mhm. waroon pare sax mais. ba tey maa ngi sama première année. première année nga nekk ba tey. général bi tegee loxoom nag ba léegi. may na ma jàmm may na ma salaam ndax maa ngi nii validé naa sama première année. ah première année bi trois ans mënu ma kaa fexe ba am ko. validé naa sama première année ren. loolu yëpp. xalif général baa tax ba ma am mhm. kon maa ngi koy sant bu baax a baax jinne bi nag sonaloon na ma torop dëgg la doon na ma ruube di ma jaay yëfu bandi dëgg la waaye ba ñëwee si xalif général bi nag ci la xam ne bandi wut mënul ruube da doon jàng rek <laughs> ndax lijjanti na ko. Mhm. teg na ko place am léegi moom alhamdulilah. sëf ko bu baax a baax. léegi nan nga daan def comme jinne bi bi nga daan dem ci yenn sëriñ yi parce que sa yaay nee na wër na ba jeexal sëriñ bu nekk dem na fa mais bu demee jinne bi sax wax na ko fii ci gémmiñam du ma dugg. wala mm. su ma demee dama leen di ruubee ñëwaat yooyu yëpp nan nga ko daan dundee nga daan dem fenn sa jinne bi ñu ne faj nañ la ba pare nga ñëwaat jinne bi ñëwaat di la sonal loolu nan nga ko doon dundee. dangay xëy un bonjour rek mu commencé waat. Mhm. parfois sax nit ñi dañuy jàpp ne yaa ko tey fekk demeewul noonu. Mhm. metti woon na trop saa amee espoir mu tas mais fii ba tey moom. Mhm. yàlla bu baax a baax. bu metti du si ñàkk bu ma sonnee wala nelaw ma rek la may dal. mais affaire rab ak seytaane moom. gisatoo leen daal. ah sonal gisatuma ko daal. duma ni sonalatuma sax waaye gisatuma ko wax dëgg fa neex yàlla. kon macha allah kon nan la la daan dundee biir université parce que yaa ngi naan dafa tardeel sa jàng bi waroon na fekk mu nekk sa troisième année wala nga pare nga toll nag ci ba tey ci première année yàlla dimbali la tey ba sa examen nga passé loolu nan nga ko daan dundee boo daan jàng ànd ak li nga xam ne moom mooy jinne bi nan la la daan def biir université. parfois mhm. dina ma jaxaseeg ñi may àndal. parfois ma toog fanaanoo jàng ba fajar. Mhm. su ma demee def devoir du ma bind dara wala li may bind ak liñ may laaj du doon benn. du doon benn. Mhm. looloo gënoon tax du ma valider année yi. mais ren moom alhamdulilah li ma jàng yëpp jàpp naa ko. su ma jàngee dinaa jàpp su ma demee suñ ma laajee dinaa bind liñ ma laaj. am naa note yu baax tamit. kon macha allah. kon nag mi ngi noonu am na solo gis ngeen ko ni muy jinne bu dëgër bopp jinne bi ñu naan Michel jinne bi nga xam ne dafa soxor sëriñ bu mës a dem wàccee la ruube fa indi la ay problème yaayam fu mu ko mës a yóbbu mu toj ko comme ni ñu koy waxee ci saa su bi mu ñëwee ci le roi médecine traditionnelle di monde mu nekk jinne bu sadik jinne boo xam ne dafa ñëw di teg lu metti sëriñ bi daal di koy maîtriser toroxal ko ba da ko ne dugal fii ci biir suufu chaise bi mu daal di fay dugg toroxal ko humilier ko ñuuxu leen ko na dugg ci ron chaise bi xëcc leen ko mu ñëw mu ñëw xëcc leen ko mu dugg ci ron seize bi génn xëcc bës leen ko bës leen ko mu dugg ci ron seize bi xëcc leen ko mu dugg xëcc ñoddi ñoddi ñoddi duggal leen ko ci ron seize na dugg ci ron seize bi na dugg na ci ron seize bi na dugg na dugg ci ron seize bi roof leen ko na dem puus xëcc na dugg xëcc roof leen ko mu dugg ci ron seize bi ñoddi bas bës leen ko bës leen ko na dem bës bës na dugg forcé aha xëcc leen ko na dugg na dugg xëcc aha aha na dugg na dugg na dugg aha xëcc xëcc na dugg dugal leen ko ci ron chaise bi na dugg dugal leen ko aha dugal leen ko ci ron chaise bi xëcc na dugg na dugg dugal dugal leen ko ci ron chaise bi xëcc xëcc xëcc na dugg na dugg na dugg na dugg ci ron chaise bi aha nga ne lakk leen ko foofu nag xam nga foofu kenn du gis lakk leen ko foofu dóor leen ko noo leen ko mën a def ngeen def ko foofu macha allah mi ngi noonu les frères rouges qui détectent les mauvais esprits Thierno Moule Sow daal di maîtriser jinne bi ñu naan Michel ak beneen jinne bi nga xam ne daf ko yabaloon mu daal di leen téye ba xale bu jigéen bi mi ngi nii léegi daadi am jàmmam nekk ci salaamam daal di fi examen mag lépp macha allah ba tey nag mu daal di ñëw ndax témoignage ak mbégte ñëw di ziar ki nga xam ne moom mooy sëriñ bi kon nag tey lan moo fi nekkoon tànk yi tey gis nañ ne nga daal di ñëw indaale benn butéelu lem nga tey daal da ñëw pour témoignage kon lan ngay wax sëriñ bi ci lim la defal yii nii yëpp ñëw rek pour delloo ko njukkal. sàmm ko lëre donte euh, xaalis bi new fi. Mhm. yéene woon nañ ko lu ëpp lim ñu fayee ko. dëgg bu fi alal gi newoon tamit saa bu ñu xëyee dinañ ko indi. dëgg la waaye comme que alal bi new fi. Mhm. ma toog toog ne gëj naa fi tey rek bi may ñëw maa ngi naan sama papa maa ngi dem si na mu ne ma loo fay def. Mhm. ma ne ko comme que gëj naa fa. xaaral ma dem nuyu ko de ziyaare comme ne ma ah ma ko waa mu ne ma waa baax la boo demee nga nuyu ñu ko. ndeysaan donte xaalis bi newu fi mhm. ñu ñëw rek di ziyaare mhm. nuyoo dëgg la li ñu ay ñaan macha allah ñu bu ñu sañoon saa bu ñu xëyee <laughs> dañ fiy ñëw mhm. saa bu ñu xëyee bu ñu sañoon sax toog si kër gi waaye xam activité yaak yooyu moo tax. dëgg la léegi nag saa bu ñu ko temps bi permettre dinañ ñëw. ñëw ziar waaw sëriñ bi. Mm. macha allah kon euh, nga nekk université Cheikh Anta di jàng di daanu am na fi ñeneen tamit ñu fa nekk di dund affaire rab ak yooyu léegi ñoom sa xarit yeeg yooyu bu ñu gisee vidéo yi ak ñeneen ñi nekk biir université di dund loolu ñoom na lañ gisee vidéo yi. ah xëy na tam ñu seetaan ko te waxuñu ma ko. waaw amul kenn ku ma ci wax dara mën naa am tam ñoom ñu seetaan ko. Mhm. di ma ko nëbb wala di la ko nëbb wala am si nag ñu ko si seetaan. moom. Mhm. nee na ma yàgg na kaa seetaan. dëgg la ba keroog bi ko gisee sax moom koy wax am na si mhm. sama xarit yoo xam ne ñoo nekkoon Kolda tamit. ñoom tam seetaan nañ ko am na koo xam ne nee na bëgg na fee ñëw mais jëkkër ji moom parce que nee na euh, wujju yaay jëkkër ji. dañ koy tooñ yooyu. Mm. moo tax jëkkër ji nanguwul pour mm. bu ñëwee fi day weeru de. wax naa nag nee waxtaan ak jëkkër ji waaye mooy li may wax ci saa su ne yaakaar naa ne jinne yi ñooy ruube chaque jour nag boo nee damay dem kër Thierno Moule Sow ñu setul rek ñoom ñoo lay gàllankoor ci saa su nekk kon nag mi ngi noonu leer na ñu daal di gis nag tamit nga ànd ak sa sœur bi moom tamit mu nekk ku bëgg Thierno Moule Sow sopp ko loolu. day àbb téléphone ak téléphone jàmbur yi di koy jël di nëbbatu fu ne pour. seetaan ndeysaan di seetaan sëriñ bi macha allah am doom lu mu tudd. Ndeye Awa naa def. gis nañ la tamit yow tey nga daa di ñëw yow tamit di ziyaaraale sëriñ bi sànq maa ngi lay laaj nga dégg yow tamit ku bëgg sëriñ bi nga kon lan ngay wax sëriñ bi lii mu defar sa faj ko ak yooyu lan nga ciy yow tamit. <laughs> ndeysaan moom daa bëri daa bëri kersa kon nag macha allah sëriñ bi comme bi ngi nii comme li ñuy wax ci saa su ne sëriñ bi lii moo dàq sax jox ko ay million ndax mu faj la. daa di fexe li nga xam ne na mooy jinne ak dëmm yu la toppoon di la gàllankoor ci àdduna ñi nga xam ne bu ñu duggee ci yow ñoom ñoo lee gis waaye mënoo leen gis di la ruube ci saa su ne mën la rey mën la indil ay gàllankoor di la manipuler ci saa su ne lu toll ne xalif général de jinne daal di jàpp nag loolu dindi ko tuubal ko kon nag Thierno Moule saw kenn amul fayam kon nag mu ngi noonu mbégte la mu nekk xale bi nga xam ne étudiante la nekk fii ci université Cheikh Anta Diop kon nag sëriñ bi ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax gis nga ko ki nga xam ne yaa ko fajoon macha allah génne ci moom ñaari jinne bu tudd euh, Michel. ak euh, beneen jinne macha allah muy ñaari jinne yu soxor ji nga capturé ci moom ba tey nag mu nekk ci jàmmam ak salaam daal di ñëw pour ziar si la kon nag sëriñ bi ñu ngi lay jox kàddu gi bu baax. waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin aouzu billahi mina saytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi al azim gannaaw ba sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu mbokk jullit yi mbokku taalibe yi di kontaan bu baax a baax di la nuyu soxna Ngone Dia macha allah di nuyu Youssouf di nuyu soxna Koddu di ko nuyu bu baax di nuyu aussi euh, petit sœuram bi macha allah di sama fans maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di nuyu yaayam aussi di nuy pappam di kontaan bu baax a baax. defe naa ne tànk yi tey tànk mbégte la tànk euh, ñëw pour sant pour gërëm. loolu rek mooy lépp vraiment sant ak gërëm bi rek moo ñu gënal sax xaalis bi ndax nag teraanga loolu la ndax nag macha allah barki démboo Ndiaye gis ngeen ñaari jinne yi doy waar bi ci gën a bon nag mooy Michel. jinne bu soxor dafa ne woon dafa may dévier. Mhm. defe naa ne vidéo bi dinañ leen ko won ngeen gis ko. Mhm. mu nekk xale bu jigéen bu am bu am bopp bu am xam-xam ci li muy def ci li muy jàng mais saa yu jàngee jinne bi ëf ko saa yu jàngee jinne bi ëf ko bu demee école du mun a xamati dara. maanaam jinne bi tardel ko heure bi ne woon waroon na dépassé fii mais jinne bi indil ko gàllankoor yàqal ko mais gis nga ba mu ñëwee fii jour boobu mu ne ma daf may défier waaye gis nga jour boobu dama ne jinne nañ ma ko dugalal ci suuf ci sama suufu seize sonal ko foofu duma ko defe naa ne sonal jinne bi jëflante ak moom defal ko bagage ba daal di koy tuubal ba jox ko tur ba daal di koy génnee jinne bi actuellement moo ngi fii di ma liggéeyal macha allah amoon na beneen jinne tamit bi nga xamante ne cousine jinne boobu la cousin am la jinne boobu tamit jàpp nañ ko génne nañ ci moom ñaari jinne actuellement mu ngi am jàmm mu ngi am salaam tey nag dafa ñëw doxantu si fii pour ziar ma sant ma ak gërëm ma indil ma macha allah lem bu bari sax. mu mhm. ngi koy sant bu baax. ndax nag teraanga mu ngi mhm. lu mu def nii rek lu rëy la déplacé wu rek ñëw. Euh, fàttaliku ma xalaat ma ne ma ah, sëriñ bi kat war naa dem ziar ko mhm. loolu dama ko ci ñaanal bu baax yàlla dimbali ko ba lu mu fu mu bëgg a egg ci njàngam yàlla. Hmm? fu mu bëgg a egg ci njàngam yàlla dimbali ko parce que ñun nii lañu ñu fi nekkee pour jàppale askan bi pour jàppale jaam ñi waaye saa yu ñu la dimbalee rek war nga am reconnaissant parfois nga retourné waat ñëw ci nit ki sant ko gërëm ko ñaanal ko mu ñaanal la aussi loolu daf lay gën a yokku rek kon nag sant nañ ko moom ko du gërëm nañ ko sant nañ waajuram defe naa ne macha allah jinne yi sonal nañ ko lool indiwal nañ ko ay jafe-jafe. indi woon nañ ko ay tolof tolof kon nag léegi actuellement mu ngi ci jàmm bu baax a baax nee na Euh, examen bi mu doon def euh, validé nañ ko macha allah am na ko. Mhm. kon nag loolu sant yàlla la ngoone defe naa ne lii lii lu lu lu baax la kon gis nga jinne yi dañuy yàq. dañuy yàq dañuy sonal xale yi dañuy sonal njaboot gi ñi nga xamante ne dañuy war a nekk ëllëg dara war a jàng war a réussir jinne yi dañuy nekk seen xel yàq ëf lépp lu ñuy jàng jinne yi jaxase ko ba nit ki du xamati dara waaye actuellement gis nga ko tey àndul ak yaayam dafa ànd ak rakkam jour mu fi njëkk a ñëw yaayam la àndaloon ba mu fi ñëwee àndul ak sagoom nekkul ndax li mu àndal yàlla def na ñu jàpp loolu tuubal ko mu nekk taalibe gis nga tey dafa ñëw pour sant si ma pour gërëm si ma kon nag ñoo kontaan bu baax di leen ñaanal jàmm gis ngeen macha allah moom ñaari jinne lañ génnee ci moom jinne yooyu ñoo ngi fii ak man moom actuellement mu ngi ci jàmm moo ngi xelam moo ngi tranquille kon nag sant suñu borom ngoone defe naa ne lii tamit mbégte la rek ak kontaan te ñaanal ko rek gudd fan bu ànd ak wér ñaanal tamit rakkam bi yàlla na yàlla defal leen jàmm ci barke yonente bi sallallahu alayhi kontaan nañ bu baax a baax vraiment macha allah ñu muy mbégte macha allah ni ko sëriñ bi di waxee ci saa su ne li dafay sedd xolam ndax mu dimbali la ñaanal la macha allah du xaalis du dara waaye nga daal di ñëw ne ko sëriñ bi sant naa la gërëm naa la ndax li ma dimbali ndax jinne kat fi àdduna wërngal këpp yaakaar naa ne fu ne di fa dem ba jeexal ci àdduna te doo gis li kenn mu la saw di def gu ko def da ngay dem ci ñoom sëriñ Diop sëriñ Ndiaye sëriñ sekk ñoom sëriñ Keita ñoom sëriñ Saw boo demee ñu tëpp tëppalal la ndax la daal di lekk sa xaalis nag du mujj fenn waaye boo ñëwee nag ci kenn mu la saw fayakun mu daal di jàkkaarloo jinne bi daal di koy duma daan ko daal di jël jinne bi ni ma koy waxee ci saa su daal di koy condamné à mort libéré nit mu daal di dem nekk ci jàmmam nekk ci salaamam kon nag ci yàlla mu la saw yàlla mi am fayam yàlla na ko fi yàlla fay yàlla yokkal ko yokk ko ba ba mu yëg ko ci barke ñett leeru Thierno Mouleye waaye ci barke Seydina Mouhamed macha allah mu nekk témoignage bu am solo macha allah kon nag yuusu ñu teg foofu suñu loxo daal di dellusiwaat ci yeneen programme yu TMS TV tàllal loxo ki nga xam ne ne moom mooy sëriñ bi gis ngeen mu indi noonu butéelu lem bi daal di koy ñëw ziare ki nga xam ne moom mooy sëriñ bi kon nag tàllal la sa loxo mu ñaanal la ndax yaa ngi avancé si jàng bi bu baax a baax mu gën a avancé ndax lii la doon gàllankoor ci saa su ne roi médecine traditionnelle du monde téye na ko ci këram daal di lay libéré nga dem kon nag macha allah yal na yàlla defar lépp ci barke ñetti leeru Thierno Moule Sow yi macha allah.